tuubu ilallahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ikhwata al-islam aksiru min al-istighfar wa tawbati ila al-ghafuri rahim yaqulu rasulu sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tuubu ilallahi fa inni atuubu ilallahi fi al-yawmi mi'ata marra wa yaqulu subhanahu wa ma kana allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun rabbana inna dhalamna anfusana dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faxfir lana maxfiratan min indika warxamna innaka antal xafuru rahim mbokk ginnaaw ban sante yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa di baalu ak ñépp di baal ña ak ñëpp di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom yërmande te borom mu jéggal mu boo ñu yërëm mu boo ñu yërëm te booruñu jéggal ginnaaw loolu nag ñu tàllal suñuy loxo di ñaan suñu borom bi nga xam ne mooy borom sant mooy man Cheikh Mamadou Mountakha bi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba ak mboolem njabootu Serigne tubaa gépp suñu borom tax may leen kàttan ak wér ak tal goo xam ne danañ mën a taxawoo liggéey ak yéene ji nga xam ne moom la Serigne Touba amoon ci lislaam ñu mën koo def ni nu kawe seen jot te daje ci ngërëm suñu borom tey ko ñoom képp koo xam ne itam lislaam mën a tax a jóg te moo mooy sa itte yàlla na suñ borom def ko jox kàttan jox la ak man ak lépp loo xam ne yéene nga koo defal lislaam nga def ko di kawe sa njot te ak ña ngi ko àttan yépp te daje ci ngërëm suñu borom ginnaaw loolu nag ñu ni ñu ngi doon ci nafar bi nga xam ne moom lañ bokk di nafar bokk gi nga xam ne moom lañu bokk di fàttalikuwaat ñu ngi taxawoon ci ne doomu aadama jullee rawatina ab jullit war na waxtu wu ne léeg-léeg mu toog seetluwaat boppam moom ndax mi ngi fi mu war a nekk war a fi war a nekk bu ca yàpp naa bu seetloo boppam benn mu gis ne mi ngi fi war a nekk loola nag la ko war a yóbbu mooy la mu ko ko war a jëmee mooy sant suñ borom ngir xam ne moo ko dimbale ba ma mën a nekk fi mu nekk bu fekkee ne fi mu war a nekk nag mu jéggalu suñ borom delluwaat ñaan ngir mu ko ci fi mu sax nekk ci li mu war a nekk loolu nag moo tax ginnaaw bi nga ne xam nañ ne seet ku lu ku ne ngay gis mooy nga gis ne yaa ngi fi nga war a nekk wala ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk a nekk fi nga war a nekk kon te yaakaar nañ ci jamono joo xam ne do jullit bu ne war a doomu nekk war nay seetlu boppam ndax mi ngi fi mu war a nekk wala war a nekkul fi mu war a nekk ndax xam nañ ne musiba yi nga xam ne mooy am ak xew yépp day suñ borom moo xamaloon nañu ne dara indiwu ko fi lu du jën ndax suñ borom amul lu yërëmane ak ak ak ak ak yiw moom ëmbal doomu aadama yi mu nekk la am itam kon nag lu xew lu weesu loo xam ne doonatu yiw loo xam ne génn li nga xam mooy li doomu aadama di nappal doomu aadama na xam ne doomu aadama moo ko yóbbee boppam te suñ bopp xam lañu ne xamal nañu ne day li ngeen di def day bari na lool ci loo xam ne du yoon waa banoon naa leen caa topp nag waaye du ma leen ci topp nee na ndax bu ma ko defoon day bu fekkoon ne maa ngi nii li xam ne yéen a koy def te du waru leen koo def nee na kon du bàyyi kenn ci doom benn doomu aadama ci kaw suuf ndax tooñ yi bari na xew yi bari na nga xam ne itam moo nu yóbbee musiba yi bari na kon nag li nga xam ne moo nu ciy dimbale mooy nañ tuub delluwaat ci suñ borom suñ borom xamal nañu ne tuub day moom rëy na ci moom rëy goo xam ne képp koo xam ne yaa ngi koy def du yem ci jéggal la bàkkaar waaye dalay defal tawféex àdduna ak tawféex àllaaxira kon nag loolu doon lu rëy ci moom ndax tuub li li ko tax rëy rëyaay boobu moo di ne tuub day tekki ne yow kat nangu nga ne suñ borom mooy sa borom xam nga ne itam am na ku la ëpp doole am nga am xam ne xam nga itam am na am na ku la ëpp kàttan loolee nga nangoon suñ borom nag moo tax borom boo ko defalee mu jéggal la lépp loolee nga xam ne moom nga defoon du yem ci loola waaye dalay defaral sa adduna defaral sa àllaaxira kon tuub bu doon loo xam ne am lu mat a bàyyi xel yonente bi sallallahu alayhi nag dañoo xamal ne tuub di du ne tuub naa rek yam ca waaye day tekki li mu war a tekki mooy lépp loo xam ne defoon nga ko ci loo xam ne doonul yoon danga ko war a bàyyi te fas yéene am yéene doo ca delluwaat mukk te rëccu itam li tax nga defoon ko te fas yéene sa dudd gi li ci des dootoo ko defaat loola nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamaloon nañ ne képp koo xam ne yaa ngi tuub wax ne maa man day damay tuub ba noppi te tuub googee day mel ni la nga tuuboo nga tey wala nga delluwaat ci suba mel ni da ngay dangay ngay da ngay doon koo xam ne suñ borom tegoo ko fi nga teg bàyyi woo ko xel itam ni nga ko war a bàyyee xel ndax koo xam ne def nga loo xam ne waroo koo def ba taxaw ci kanam jéggulu wax ko ne dootu boo ko def bañar bi ko waat di ko defaat day benn ni loola kon ka nga doon waxal fa ko war a teg tegoo ko fa ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu xamal ne képp koo xam ne jéggul da wax ne jéggul naa ci bàkkaar ba noppi nekk ci bàkk delluwaat ci bàkkaar ba wala taxul mu génn ci bàkkaar ba nee na day fa koo xam ne dafa doyadal boromam wala dafa benn dafa xeeb boromam wala dafa xam ne day mel ni kuy naqaral suñu borom loolu nag yàlla nañu ci suñu borom jéggal ba du bu àgg foofu mukk ba lépp loo xam ne jéglu nañ ko wala tuub nañ ko ñeneen suñ borom dimbaleel ci kàttanam ak manam ba duñ ca delluwaat loole nag man naa sax am ne xam nañ ne doomu aadama moom munta mat faw léeg-léeg mu delluwaat ci loo xam ne tuboon na ko waaye nag bu tuubee itam suñu borom dana ko jéggal ndax am na yonent bi xadis boo xam ne dafa wax ne doomu maa ngi de joo xam dafa dafa tuub suñ borom jéggal ko mu defaat loola jéggaluwaat suñ borom ndax xam ne ba tey xam na ne suñ borom nekk ci kawam xam na ne am na kàttan ci moom xam na ne mën na am lu la ci moom ba mu ko defee suñ borom da koo jéggal mu defaat ko beneen ñett ba ay yoon yoon ba mujj suñ borom wax ko wax ne kii day comme mu ngi nangu ne maay boromam di xam li li mu def te te li mu def teguwul fi mu war a tege di ma jéggalu bu ko dara kon mu mel ni tuub dafa doon loo xam ne lu am xel solo la lu mat a bàyyi xel kon mel ni nag tolloy toll ci jamono joo xam ne yaakaar naa ne tuub luwaat ci suñu borom xamal ne ko yaa yaa man ci ñun yaa sañ ci ñun yaa yow rek yaay ki nga xam ne yaa nu mën a dimbale rawatina tolluwaay bi nga ne moom lañ toll buñ ko bokkoon def yaakaar ne suñu borom mën nañoo jéggal mën na fee jële li nga xam ne moo fi nekk tamit nekk itam te sotal sonal doomu aadama kon nañ gën a bari suñuy tuub ndax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom suñu moo ko wax ne ko topp ma la benn de topp ma la dara ci sa dund moo xam li weesu woon la li nga jublu si moo moo ñuy xamal ne man de bés bu nekk dinaa tuub lu ma téeméeri yoon kon ki nga xam ne toppuñ ko dara te mi nga xam ne war naa tuub bay tuub téeméeri yoon kon rawatina ñun ñi nga xam ne nag xamuñ ci suñ bopp dara loolu kon ñu bari di lu ñuy jégglu loolu di tuub loolu lu am solo la ci suñu dund la nañ koy bàyyi xel bari lu bari yonent bi suñ borom itam am jëgle goo xam ne da koo defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xamal ko ne yaa ngi yaa ngi dund ci sa bi mbugal yi daa xew ci yeneen xeet yi ñuy ñuy ñu leen di labal wala ñuy këpp soo ñu wëlbati suuf ci seen kaw nee na ko loolu day moom yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li fekk yaa ngi dund ci sa biiru xeet wi loolu du xew waaye nag yëm mën naa am jamono joo xam ne doo nekk dund ci seen ci ñoom waaye am na leneen loo xam ne jox naa leen ko loo xam ne lu ñu ngi koy def mbugal yooyee du dal ci ñoom moo di nañuy tuub kon mu mel ni tuub lu mat bàyyi xel na lu mat lu mat di def la rawatina nag jamono jii nga xam ne moom lañ toll moo tax suñ borom mi nga xam ne mooy borom mu njëggal te mooy ki nga xam ne mooy mooy mooy bàyyi bàyyi mooy mooy moo nuy baal bépp bakkar boo xam ne def nañ ko bu fekkee nangu nañ ko te fu ne am yéene duñ ca delluwaat dogg itam duñ ca delluwaat ci li def ci suñu dudd moom mi nga xam ne mooy jéggale bakkaar yooyu te ndax yërmande rek la feese ndax xam na ne ñun ñi doomu aadama yi day ñu nekk ci kaw suuf duñ fi tax fi war a dëgg waaye nag buñ bu waxtu wu ne li feek seen borom di dellu ca moom rek bakkaar buñ mën di def itam mën na leen koo jéggal mën na leen koo ñàkk kon mu mel ni ñu toll nañ ci jamono joo xam ne wax joojee nga xam ne daa sëñ Fallu da koo saxaloon ci napp doomu aadama yi saa yu jullee di wax ne nañ sax ci tuub tey sàkk sarax tey balantu ak mu ñetti baat yoo xam ne lépp àdduna lamboo na ko ndax tuub mooy xam di dellu ci sa borom xam ne moom rek moo ma sañ ci ma moom rek moo man ci yow sa sàkk sarax gi tam yonente bi sallallahu alayhi moo nu xamal ne yéen ñi nga seen mbokk yi nga xam ne dañ wér di day su ngeen leen bëggee wutal saafara bokk na ci saafara yi ngi leen di mën a wutal mooy ngeen di ngeen di leen saraxeel àq yi ak tey balante ak tam mooy tuub ñaar ndax benn mu doon tub tooñ goo xam ne sa digganteeg sa borom la wala mu doon tooñ goo xam ne sa digganteeg doomu aadama yi la moom la ñuy tuddee ay xoox kon nag nañuy tuub suñ nañuy tuub dañuy say sàkk sarax tey balonte ak di ñaan suñ borom ko ne ko moom rek moo fi nag moom rek moo man si ñun loola dana tax lii xew lépp ñu mën a am ñu mën a am muñu wala mën a am taxawaay boo xam ne danañ mën a xam nañ cee nañ ca war a taxawee xam nañ ko war a mën a jàlle ndax bu loolu amut di mën nañoo dund ci jaaxle goo xam ak ak ak ak ak loo xam ne duñu xam muy yem xam lu lu ñu ci génne te loolu nag kon suñ borom ba mu wutal nu génnukaay buntu génnukaay boobee nañ koy bàyyi xel te di ko def loolu moonu mowee moonu mën a moonu mën a moonu mën a tax li nga xam ne moom la ñuy def suñ borom mën nu koo jégal ba yërëm nu xam ne ay doomu aadama lañ ñu doyadi yu matay yoo xam ne munu dara xajut ci ñun te suñ borom kat ba mu waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko itam li feeg yaa biir xeet wi leen mbugal mbugal yu mel ni lam ya daa dal xeet yi jiitu woon bu dee jégalu itam du leen du ma leen mbugal mbugal yu mel nga xam ne moo moo ci xeet jiitu woon waaye nag moo waxaat itam ne wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal jooxi wa naqsi min al amwali wal anfusi wa samarati wa basiri sabirin kon mu mel ni loo xam ne dana solo doomu aadama wala loo xam ne dana wone ak masadik doomu aadama du fi jóg loola nag mën na koo dale ci mbokk mu mu amoon te yaakaar ca am ca yaakaar suñ borom jëlee ko fi mën koo ci alal jooje amoon na ca yaakaar suñ borom faagagal alal alal jooje mën na koo amee ci loo xam ne yeneen yu métit la yoo xam ne doomu aadama xaju dara ndax mat doomu waaye nag waxtu wu ne li fekk ñu ngi dell ci suñu borom di xam ne moom rek mooy ki sañ moom rek mooy ki man moom mat a bàyyi li lépp li lépp bépp mus mu xew wala bépp situation bu nekk danañ ko mën a jéggi jàll kon nag yàlla na suñu borom mi nga xam ne moom mooy boroomu jéggal ñu ngi koy tàllal suñu loxo di ko xamal ne ñun de ay doomu aadama lañ yoo xam ne mën nañoo tooñ lool te tooñ yee tooñ yu lay doon te xam na ne kenn jéggale bàkkaar yi ku dul yow kon nag ñu ngi sàkku suñu jéggal ñi ngi ndax xam nañ ni yaay jéggalaa kon bi xam na ni yaay borom yërmande ji rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi laxirati xasanatan wa qina adaba naar aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li zaa'iri lmuslimina fastaghfiruhu innahu huwa alxafuru rahim